site d'information bi ñuy wax l'équipe point fr nga xam ne nag ci wàllu sport lay yëngatu ak yeneen i site sax ñoom ñoo xëy bésu ba àllarba ji ne daal Sadio Mané forfait na mondial 2022 euh, maanaam du ca bokk la ko waral nag ñu ne gaañu gaañu boobu nga xam ne am na ko euh, démb wante nag ñii di waa fédération sénégalaise de football ñoom nag dañ caa bugg a dem ndànk ñoom sax nee nañ démb euh, ba léegi ñu ngi topp mbir mi euh, jotoon nañ sàkku nag ay information ci waa na wante amaguñ ko dañ leen waxoon ñu xaar bés ba tey bi ñu ne nekk nii nag ñoom ñu ngi xaar li nga xam ne moom mooy position officielle bu département médical bu Bayern moom maître Augustin Senghor di président fédération sénégalaise de football nee na fi mu nekk nii nag xibaar yaa ngi daw wante ñoom it mënuñu weddi xibaar yi ndax loolu lu mën a am la lu mën a nekk la kon nag nee daal dañuy xaar ba am ay xibaar yu gën a wóor ngir ànd ngir xool kon ana naka lañuy ñuy doxalee njiitu réew mi Macky Sall àdduna jëmale si gaañu boobu nga xam ne Sadio Mané gaañu na ci ab message boo xam ne sax mu ngi ko publier ci lii di compte Twitter am mu ngi cay wax kii di Sadio maane daal di ko dëfal euh, naan ko nag euh, yow saajo maane xam nañ ne euh, gaynde nga kon ñu ngi lay ñaanal daal nga wër ci lu gaaw yal na yàlla sàmm la. journaliste bii di Malick Touré nekk présentateur bu 11 d'Europe ci Canal Plus Sport moom nag euh, la mu wax sax dal na xel ndax nee na daal euh, Sadio Mané ba fii ñuy wax daal euh, gaañu gaañu boobu ñi nga xam ne ñoom ñooy docteur ñu ngi ci woon di liggéey kon mënaguñu wax lan la ba sax tax na kon mu ne bokkam ci coupe du monde daal fi mu nekk nii kenn mënul wax ne du ca bokk ndax dara leeragul kon ca mbir ya. Euh, démb nag ki nga xam ne moom mooy Sadio Mané sax moom euh, joxe woon na ay xibaar ci boobule gaañu gaañu gannaaw bi nga xam ne mu ngi doon jokkoo ak chargé de la communication euh, bii di Bakary Cissé bu ñu sukkandikoo nag ci Bakary Cissé Sadio nag mu ne Sadio Mané dalaloon na xelam war na ko sax fa mu gaañu mu nekk ca ëmb mu am foo xam ne xaw na néew yi mu ne nag la nga xam ne daal moom la docteur yi njëkk a wax moom mooy match bii di ñëw daal foofu la ca na du ko mën a euh, football wante il faut ñu xaar nag amal ay euh, analyse ba def daal kon gën a xam lan moo ko dal amal li nga xam ne moom mooy ab communiqué officiel loolu la ñu ne tey ci ay xibaar rafet seen alo di ñaan euh, Sadio Mané wër ak jàmm ngir mën a bokk ci li nga xam ne moom mooy mondial 2022